fu mu nekk nii déplacé nañu plus de cent vingt hommes ay agents d'hygiène yoo xam ne jóge nañ partout ci Sénégal. fekk si waa Touba service national de l'hygiène aussi direction ba tamit day ñëw actuellement ñëpp a ngi fi ak oto yi ak suñu matériel ñëpp ñëw nañ léegi suñu ñëwee nan lañ lan la ñuy def suñu ñëwee. li njëkk a def mooy pomper dëkk bi fu mu nekk nii koñ ñëpp wër nañ leen guddi ak oto xam naa nit ñu duñ ko yëg ndax ay minuit la ñun ak waa direction de la protection des végétaux bu Dakar ñun ñooy ànd ak suñuy oto pompe dëkk bi yëpp fu mu nekk nii wër nañu intra rocade bi ak extra rocade bi quartier yëpp wër nañ leen pompe loolu def nañ ko ñeenti fan gannaaw loolu xam màggal bi dafa am kuréel yoo xam ne nii commission assainissement bu nga xam ne nii ñoom ñooy organiser màggal bi dañuy def ay set setal ci quartier yi yor ay camion di jël mbalit mi di yóbbu mbalit moomu ñuy jël xam nga day amee doomu jàngoro am ay gunóor am ay weñ service d'hygiène day ànd ak ñoom mbalit bu ñu jël ñu pompe ko. Euh, màggal bu ñëwee bépp produit boo xam ne dafa bon nekk ndakaaru wala feneen dañ ko indi Touba ngir jaay ko ci màggal gi. produit yoo xam ne baaxul moo tax agents yi dañuy taxaw tem di wër di wër marché yi wër boutique yi bépp produit boo xam ne gis nañ ko baaxul dañ koy nangu boromam ñu te koy daan may ñaan mbokk yi képp koo xam ne gis nga foo xam ne ñu ngi fay jaay loo xam ne ni macaroni beurre moutarde en tout cas lépp loo xam ne dañ koy lekk te jaaduwul na nga ko signaler service d'hygiène loolu dañ koy ñaan askan wi.